Nous venions d'être euh, appelés à venir donc euh, participer effectivement aux mesures à prendre pour euh, euh, éteindre un feu qui s'est déclaré dans deux magasins, euh, l'un contenant de la friperie et l'autre des produits cosmétiques. Euh, le feu s'est déclaré de manière assez inquiétante au départ, mais avec euh, l'intervention diligente et intelligente des sapeurs-pompiers, combinée également aux diligences de, de l'autorité administrative, euh, je veux nommer le sous-préfet et les agents euh, de la municipalité, nous avons pu très rapidement circonscrire le feu de manière à stopper sa, sa propagation. Comme vous l'avez indiqué effectivement, c'est comme si nous l'avions senti, parce que depuis des mois déjà, nous n'avons jamais cessé en tout cas d'alerter, d'attirer l'attention des acteurs, des commerçants, des marchands ambulants, des tabliers sur euh, les dispositions à prendre pour éviter ces genres de situation Il n'y a pas ce que nous n'avons pas euh, initié, entamé comme action publique de nettoiement, de désencombrement, de sécurisation. Mais hélas, ils ont toujours tendance à venir, à revenir. C'est d'ailleurs pourquoi quand euh, l'incendie s'est déclaré, euh, les sapeurs ont, ont, du mal, franchement, au départ, pour euh, intervenir dans les meilleures conditions. Les rues, les ruelles étant jonchées, hein, bouchées hein, par des tabliers, des vendeurs de poissons, hein, un désordre indescriptible. Je pense qu'il y a lieu, évidemment, de reprendre les mêmes actions, euh, d'insister encore pour que ces genres de situations ne se reproduisent pas. Les, dégâts sont tellement Euh, on n'a pas encore fini d'évaluer, mais à ce que nous voyons, nous pouvons peut-être dire, sans de nous tromper, que les dégâts risquent quand même hein, de valoir énormément hein, euh, aux propriétaires. Mais heureusement, nous n'avons pu dénombrer aucun, aucune victime, en tout cas. Euh, aucun blessé. Hein. Il n'y a que du matériel, la friperie et quelques produits cosmétiques. Et j'en profite également pour saluer vraiment la promptitude, le professionnalisme avec lesquels les sapeurs-pompiers sont, sont, sont, intervenus. Ils sont venus promptement et ont agi et réagi de la meilleure des manières, de, pour, de manière à nous, nous éviter en tout cas euh, le pire, il faut le dire. naa ci ñaari ay bés yi ñu génn doon nga alerté euh, ñi nga xam ne ñooy jaaykat yi nekk ci euh, fii nga xamante ne moom mooy li ñu wax reconditionné. dëgg la ni nga ko waxee noonu la dañu ñëwoon fii tey ci marché central doon euh, ñëw pour jàppale askan bi ak ñi fi nekk ci lakk goo xam ne nii alors amoon na fi. lakk gi nag bi muy commencé wax dëgg yàlla tiitaloon nañu ñun ñëpp ndax euh, ampleur bi mu commencé woon di am mais ñuy sant yàlla ndax euh, bañ ko déggee rek sapeur pompier ci ni mu gën a gaawee ñëw nañ bi ñu ñëwee également fekk nañ fi autorité administrative notamment le sous-préfet de l'arrondissement de Thiès Nord ànd kook également agent yi nga xam ni alors ñoo nekk ci ci mairie bi ak la police également alors teewaay boobu taxawaay boobu farlu boobu euh, ñu moo tax dayo bi mu waroon a am alors amu ko teel nañoo euh, maanaam xool fi tàkk-tàkk bi nekk fexe ba kër karal ko ba téye ko maîtriser ko daal di koy faagaagal donc moo tax ma koy rafetlu wax dëgg yàlla mais ginnaaw loolu may nekkaat encore di woote waa marché bi ci ci ak cet ak ci ak defaruwaat ndax dëpp ay mois ngi nii alors depuis le niveau central avec le ministère en charge de l'urbanisme notamment la direction générale du cadre de vie ak waa police euh, waa waa GMI les agents de la mairie autorités administratives yi même les quelques responsables marché pendant des semaines ñi ngi fi di liggéey pour que tablier yi nga xam ni ñoom ñooy occuper euh, dégg nga maam euh, tali bi ak ñi nga xam ni ñooy utiliser trottoir bi ak magasin yi également nekkin bi loolu lépp ñu xoolaat ko ba man di éviter alors jéye yu mel nii dëgg la nag def nañ ko wax nañ ko jéem nañ ko defaat nañ ko mais à chaque fois saa suñu defaree rek alors affaire bi day ñëwaat waaye nag duñ ci tàyyi duñ ci toq toqi te defe naa ni lii fi am tey dina leen gën a yee pour ëllëg ba tax incha allah bu ñu demee ba war a defarwaat pour jekk-jekkal marché parce que moom la ñu am alors su boobaa xañ na euh, luy luy neex a comprendre ci ñoom lay doon merci